CFPI di ab centre de formation pénitentiaire boo xamante ni seen xarañteef dañ ko jëmale ci wàllum defar ay produits d'entretien lu ci mel ni javel détergent gel hydroalcoolique lave-vitre lave-mains ba ci désodorisant ak mandargam bi ñu koy ràññee di Pénipro. ak Pénipro lépp lu jëm ci wàllum set. ak sellal moo xam sa biir kër wala sa bërëbu liggéeyukaay ñoom ñoo si mën. Penipro moo leen di may seen émission tafsir al Qur'an.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 fu ngeen mën a nekk góor jigéen mag ak ndaw ak ku sori ak ku jege yëpp ñu ngi lay nuyu di la ziar ci koor weeru màgg wi ñaan yàlla mu nangul ñu suñuy koor nangul ñu suñuy nawaafil nangul ñu suñu jëf ju baax yëpp jéggal ñu nag suñuy rëcc rëcc eh, nuyoo bi ak ziar bi jiital ci kilifa diine yi ñaanal leen yàlla liñ leen yaakaaree ci diine ba def leen kilifa yàlla bañ a tas yaakaar gi njaboot gi. noonu la ñuy ñaanale kilifa aada yi ñi ñu wóolu ba dénk leen suñu doxalinu réew mi yàlla gaawal seeni seeni cër baaxal seeni projet ba ñi yaa yaakaar ba dénk leen yaakaar ba ñu tas ci ñoom ñu ngi jag eh, jagleel nuyoo ak masiyaar ak ñaan groupe bi ñu nekk di Sunugal 24 ki nekk ci bopp bi di directeur sëñ topp koy nuyu bu baax di ko ziyaar ak njaboot gi yëpp ñi fi nekk moo xam caméraman nga moo xam monteur nga moo xam producteur de songa moo xam décor euh, kuy décor ngay moo xam journaliste moo xam loo foo foo mën a féete ci kër gi rek mu feeñ mu nëbbu ñu ngi lay nuyu bu baax di la di la ziyaar di nuyu borom xam-xam yi ñu fekk ci kër gi di tafa taxawee lépp luy diina pour penc mi jëriñu ci yàlla na leen yàlla fay euh, comme ni ñu koy faral di waxee it Dóor waar Mouhamed ñu ngay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla yàlla dëgëral cër yi gaawal cër ba lépp loo def rek mu sell ba nit ñi man ci jëriñu macha allah euh, di nuyu di ñaanal suñu partenaires yi di Pinipro waaw centre pénitencier de formation industrielle nekk ca. autoroute de Rufisque ca mbaaw directeur ba ñu ngi koy nuyu bu baax Pape Djibril Guèye ak ñam fa nekkat ñëpp ñam ca Jean Char ak ñam ñëpp di jagleel bu baax ak di leen woo ci produit yi ndax yii mbokk yi ni ngeen ko gisee muy eau de muy parfum chambre muy chel yu mag geek bu ndaw bi ak yu dul sax yii ay détenu ñoo koy defar ñi yàlla nattu caabi féete leen ginnaaw ku ne xam na ne liñ bés liñ miinoon senegal mooy dugg prison su la yàlla dimbaliwul sa lépp day taxaw bors boros àddaan sax dañ la koy jëndal di la ko indil ci prison bi ah noonu lañ miinee woon prison waaye yàlla def na waa usine bi formé nañ ay détenus bañ mën a liggéey lii produit yi ñu di ko exposé ci marché bi nga xam ne tey ku ci bokk ku ñu sélectionné ci ñooñu da ngay xëy di liggéey di wàcc di dem ci prison ba su weer dee walla ñu jaay dañ am luñ dagg jox la ko nga koy yóbbu ci sa kër moomal ko sa bopp ah, ah, xam nga loolu mën na dem ba nit ki demoon prison dajale ci fond boo xam ne bu génnee mën na def commerce mën na def leneen mën na def leneen ndax mën na ci investir dara kon lii penc mi ñoo ci jàpp jënd produit yi su ko defee ñoom it ñu mën ci bénéficier wu ñu ngi ci woo ñëpp euh, mbokk yi ñu ngi ci sotul xalam taxawoon ci falaa tuti'il mukaddibiin borom bi subhaanahu wa taala di wax ci yonent di wax ak yonent bi ne ko falaa tuti' topp al mukaddibiina ñi weddi ñi lay fenloo ne li ngay wax du man maa la ko wax te man maa la ko wax li ñuy wax moo ñoom mooy moo wérul contraire bi la ñoom ñoo wax fen yow yaa wax dëgg waaye ñoom nag dañ naan la yow yaa waxul dëgg ñoom ñoo wax dëgg déedéet yonent bi ne falaa tuti'il yàlla ne ko falaa tuti'il mukaddibiin bul topp ñi weddi ñi xam ne dañ ne li nga wax du dëgg ñoom li ñu wax mooy dëgg yàlla ne na man maa ne yow li nga wax mooy dëgg ndax maa la ko wax ñoom li ñu wax moo dul dëgg luñ bëgg lu tax ndax ñoom seen seen bëgg-bëgg bu leen ko yàlla mayoon wala bu leen ko mayoon bu leen ko jamono mayoon mooy ñoom nga topp leen ñu lay sant ngay def ñi lay tere ngay bàyyi te loolu dëppoowul ak bakkande de système beeg aada rek la dëppoon kon ñoom boo leen toppoon dañ lay desloo ci aada man nag dama laa génn ci aada indi la ci diina dama génn ci aada indi la ci diina ñu ne nag aada ji nga nekk mooy caaxaan nekk ji nga nekk mooy caaxaan aada ji nekk mooy dëgg déedéet waddu ngéeju nañ law tudd hinu law fa yudd hinu law tudd hinu nga juum rek fa yudd hinu nañu song la benn bi da nga koy àbbal firi fa tudd hinu nga juum law tudhinu nga juum fa yudhinu nañu song la ñoom e, bëgguñ lu dul nga juum rek ñu song la ci li ma la wax sant la fa teg la ko nga koy doxee noonu te ma tàgg la ci nga wàcc loolu waaw nga xam ne tey dañuy xëy rek ne ah lii la ko borom bi wax kii moo doon tàgg waajam ji waa ji xoolal ni mel tey léeg nga gis ko ci pénc mi tagg di défendre nit di défendre nit di défendre nit ndax dafa baax dem ba mu yàgg rek mu doxee yeneen tànk ñi ko daan défendre ñépp na dañ naa ah, yéen xool leen diw mi ngeen doon wax diw baaxul tey baaxul ëllëg yéen a ko xamaguloon rek yéen a ko découvrir leen ne baaxul rek borom bi nee na soo juumee tey suba sa ca du mat une heure de temps ñu song la waaye wala tutex kulla xalaaf mu jagleel nag Walid ibnu Mughira wax ji xulamaa usul nag dañuy wax bi umumi lafsi laa bi xusuusi sabab alquran buy wax nekkul ne rek dafay qualifié dafay euh, tëgg wax ji ci benn nit dafay personnaliser wax ji ci benn nit déedéet waaye daf koy wax d'une manière général kon Walid ibnu Mughira démb la ku kàccoor tudd noonu démb Walid Mughira ibnu Mughira mën na am tey ci Sénégal su fekkee ne taxawaay bi Walid ibnu Mughira amoon démb ak kàccoor gi moom la am ci ñu baax ñi Walid ibnu Mughira la démb mi amoon taxawaayu kàccoor bi ci kanam yonent bi tey Walid ibnu Mughira ak démb ak tey la rek tur yee wutee rek waaye jëf ji benn la moo tax ñuy wax ne bi umumi lafsi laa bi xusu sabab kon njàngale mi dafay dafay généraliser wu waaye duñ ko duñ ko euh, centraliser ci kenn dañ ne kii démb rek moom la doon wax jeex na jeex na déedéet waaw ko personnaliser mais dañ koy généraliser moo tax yàlla nag weer waa ji moo tax ku baax jël yoon wu baax su sa xol nanguwul li muy def it bàyyil soo ko bàyyiwul yàlla dana la weer ëllëg te du tee moom mu yegg fi mu bëgg a yegg loolu gis nañ ko fi gis nga suñu maam yi yi fi nekkoon def face ak tubaab bi tubaab bi di leen diaboliser di leen tàqaleeg seen njaboot di leen fitnaal ne maam borom tubaab lañ ko def génne ko exilé eh, sept ans juróom-ñaari at mu dëdd njabootam dëddu dëkkam dëdd fi mu gën a bëgg méttital ko waaye mu jàpp ci lim jàpp rek borom bi gis nga mujj na ñi ko doon sonal ñëpp ak mag ñi fi nekkoon ñëpp mujj na wan leen ne ñoom ñoom feder boog ñoom gaa yooyu kenn tuddatu leen sax daanaka pour dox ba ne kii mooy sëtu feder bu sax te am na sët xëy na yaakaar lu mu bon bon am na doom kooku amaan na beneen doom kon am na sët waaye gis nga toroxal gi leen yàlla di toroxal ñoom dem nañ moo tax lu baax daf fiy des yàlla nag lim namm ci nit lim namm ci pénc boo ñëwee ne du fi amee yow daf lay weer ba pare loola continuer moo tax nit ñi nañ bàyyi xel ci loolu am loo xam ne koo xam ne la muy dox ak la muy def yàlla mission la nekk ci kaw suuf soo ko fi bëgg a jëlee yàlla daf lay weer ba pare te doo ko fi jëlee ko fi jëlee mukk Walid ibnu Mughira yàlla weer ko ci juróom-ñeenti yëf lu nit ñi xamuloon moom la alxuraan di tudd nii juróom-ñeenti yëf yoo xam ne kenn xamuloon ko wala yiñ ci xam bariwul yi ci feeñ bariwul maanaam yii dañoo feeñ yii nëbbu bokk na ci yàlla ne ko wala tutti ay yonent bul topp ku la xalaaf bépp géñkat waxoon naa la ci ginnaaw géñ dañ ko tere ci lislaam kiy wax di géñ di wax di géñ kooka moytu ko Walid ibnu Mughira ak noonu la meloon lu wax boole ko ngéñ te ngéñu ñeme yàlla rek waaye du dëgg nga naa ñaar la benn muy dëgg benn muy caaxaan bu dee dëgg jarutoon géñ ndax ki ki nga ko wax moom nga géñ ngam ñàkk géñ mën na koo gëm su dëgg jarul nga koy géñal parce que ki ko narul gëm nga géñ nga ñàkk koo gëm du tax mu nga géñal ko nga ñàkk koy géñal du tax mu gëm la moo tax ngéñ moom lislaam daf ci dafa am nu mu ko rëddee wax ñëwoon naa ci duma ci ñëwaat moo tax mu ne wala tuuti ay yonent bul topp ku la xalaaf bépp kuy waat di géñ ci caaxaan comme walit nu mu koy defee muy benn yàlla borom bi wax na yonent bi ne ko xal eh, Walid ibnu Mughira mii ngay jëflanteel ak ñi mel ni moom am na ci péncu Sénégal Walid yu bari nag foo dem fekk leen fa boo demee ci marché boo fekk leen fa boo demee ci tool ya fekk leen fa boo demee ci bureau ya fekk leen fa boo demee ci tribunal ba fekk leen boo demee ca kër sëriñ sa fekk leen fa boo demee ci kër politique ba ca politique ba fekk leen fa boo demee ci économie boo fekk leen fa boo demee ci santé boo fekk leen fa foo dem fekk leen fa ku mel nii muy benn kuy giñ mahiin ku doyadi yàlla nee na Walid ibnu Mughira ku doyadi la yàlla bul topp kuy giñ ba pare doyadi kana critère nga kon nit doy doyadi nag buñ ko doon wax ci wolof mooy ñàkk ful la maanaam ñàkk personnalité ndax am na loo xam ne bu ko nit melee rek ñàkk na personnalité bu yàgg ndax nii tax nit di de di nekk nit ko am personnalité valeur la valeur la ci nit valeur boobu bu ko ñàkkee rek dootul amati benn personnalité xalaaf mahiin ku doyadi xamma xammazin xam ne day rageju sooratul hummaza sooratul hummaza yàlla daf ko melale ñaari nit kuy wax ci bët ak ci làmm ci ci gimiñ waaye ci junji hamaz masha waylun li kulli humazatin lumaza yàlla nee na mbugal xuru mbugal ëllëg ñeel na ñaar ñi humaza kuy kuy géñ ci làmmeñ kuy wax ci làmmeñ te bëggul nit ñi xam ko nit a ngi taxaw nii nit a ngi taxaw nii mu ngi lay gis kii gisu la nga jàkkaarloo këlay gis def signe boo xam ne dafay wan ne kële ngay jëw kële ngay jëw loolu gimiñ moo koy def yàlla nee na rëbb yàlla nee na kii moom la waaye dafay giñ dafay giñ tamit ci dafay bët maanaam dafay def signe dafay def ay signam ci bët ni koy defee ci gimiñ noonu la koy defee ci bët loolu nag soo ko doon tekki di ko tënk mooy jikkoy góor jigéen waaw góor mën naa niiru niiru jigéen ci phénomène ci ci ay ngelaw ji ak ay gëmmu bët ak yooyu noonu waaw yàlla musal ci góor jigéen hmm? di wax di regeju am na ku ma ci seetaan fan yi rek ku nekk Amérique ndeysaan waaye góor jigéen boobu waaw bu ma ne bu nekk nekk Amérique rek doy na xam ngeen ki may wax waaw ñi nekk Amérique xëy na di góor jigéen bari nañ waaye suma ma nekk Amérique rek waa senegal fii moom ñu bari xam nañ ki may wax waaw oh, eh, di di bi ay bët jàllar bi ay tuñ naan euro eh, dollar yaa ngi damay jëndi or eh, damay jëndi or di ju di ju di xàpp xàppal hmm, yi fi góor jigéen yooy yàlla ñu ci yàlla na ko yàlla gindi waaye waajooju yàlla na ko yàlla gindi waa jooju ak képp ku mel ni moom yàlla na yàlla gindi mooy Hamas koo xam ne dafay regeju Hamas dafay piis ak ay bët ak ay gimi ak gimiñam dafay regeju ak ay bëtam góor jigéen góor jigéen wata jigéen na def yëfu jigéen melo melokaanu jigéen góor na am comportement góor na am kàddu góor waaye bu góor bokk la jigéen dara waaye di lamsal di sol solu jigéen wala di sol yooyu yooyu yooyu baaxul hmm? bëri nañ suñ penc mi lool waaye baaxul yàlla na ci musal eh, macha bin namim macha koo xam ne dafay xëy rek di wër bin namimin ci ay rambaaj mashaa'in bin namim mooy day wër loolu nag wër la wax waaye képp ku mën a publier dara lool di wër réseau yi di wër Facebook bi wër YouTube bi wër Instagram bi wër TikTok bi wër ci publication bu baaxul bu boo xam ne day jaxase ay nit rek yak yay yam yàgg Walid ibnu Mughira yam moo mu ne xam mashaa'in bi namim ko xam day dox rek di ràmbaaje bu njëkk ràmbaajkat bi day dox day ñëw jël oto dem kër diw def fa ay minit wax tuddal ko beneen xaritam tuddal ko benn waay jaxase ko moom dem delluwaat ca waaja wax ko ne ko diw Alioune Sall nee na ci yow nangama nangama nangam léegi nag biñ ko defee noonu mën nga toog sa clavier sax di bind bind loo xam ne dafay dafay juboo xëdile dafay boole ñaari ñooñu dafay affronté te Alioune Sall ak Dóor waar ñuy xëy di xuloo ba suba ba ngoon te ca clavier rek nga ko bind moo xam ci journal la moo xam da nga ko publier ci sa ci sa page Facebook wala moo xam moo tax site yi site site internet yi akañ akañ akañ am responsabilité ci lii waaw léeg bind affaire boo xam ne dafay li xale yi di wax coppati ci karaw kii def ca karawu kële bind loo xam ne dafay boole ñaar te diw yëgul diw yëgul xëy na sax diw dafa am lu mu doon wax rek wala fu mu toll woon nga dagg ci la muy wax jël photo diw boole leen kole leen mu wóor la ne nga jàpp ne diw mii diw mii lay wax léeg-léeg mu am li may xam nañ ko site internet yi di ko def loola dafay dugg ci xam machine macha in bi namim dox ci rambaaj dox di rambaaji nit ñi yu mel nii def ci dugg mën nga ko bind ci journal mën nga ko def ci euh, bind ci Facebook mën nga ko def lettre mën nga ko def nangam mën nga ko TikTok mën nga ko nangam waaye daal dafay jaxase ñaar yeneen bi yàlla ne ko. walid ibnu muxira waxoon naa la lan la gëñkat la te li muy gëñ du dëgg muy benn ku doyadi la ñaar kuy rege la ñett waaye kuy dox di jaxase nit ñi la naafiq wala rambaaj rambaaj xattaat yonent bi di wax xattaat laa yadxulul jannata xattaatun yonent bi nee na rambaaj du dugg aljana ki mel ni du dugg aljana gaa ne ah kon Walid ibnu Mughira moom mu ngi bëgg a sikk di géñkat ñu ne doy na amoo benn personnalité ñu ne doy na nga teg ci di rege ni góor jigéen niiru góor jigéen ñu ne doy na ngay rambaaj ay nit ñu ne doy na di ñeenteel waaye yemoo ca borom bi ne mën naa in lil dafay tere yiw du def lu baax moom du nangu kenn def lu baax léeg loolu am da ngay gis ku xam ne dafay dafay dëng lool dafay sikk lool waaye du yem ci moom sikk na moom bon na moom dëng na waaye loolu dafa bëgg nit ñi di ko def bu fenee nañ fen dañ ko toog ci fen yi siiwalal ko su saagaa nañ ko ko publier partageel hmm? ñu saaga ñu partagé nu mel rek ne partagé leen live <laughs> kat yi ma tooñ live kat yi partagé leen tapoté leen te partagé <laughs> paxaman li ngay tapoté di ak li ngay partagé de am na loo xam ne de bu jëmee ci deru nit nga tapoté live bi partagé ko ah ëllëg bu ñuy duma ki ko wax wala ki ko def dañ lay duma waale man naa xen lil xayr du def yiw waaye du bàyyi nit def lu baax mukk te yonent bi salaa salaam ci mbaaxu yàlla xam nga yonent bi nee na al muslimu kulluhu xayr wala al muminu kulluhu xayr jullit wala ku gëm léppam yiw la soo santaane lu baax defoo ko sax nit def ko yàlla dafay def lay fay cinquante ca def cent ya daf cay dagg jël cinquante jox la te du te du am cinquante rek de cent lay am moom cent day am waaye yow mi wax jël nañ ci tiyaaboom multiplier cinquante multiplier cinquante jox la ko te du ko wàññil dara kon soo deful lu baax sax te santaane ko te santaane ko yonent bi nee na lii ki nga xam ne dafa santaane lu baax ñu def ko moom defu ko de waaye bu ko benn waaye defee rek dañ ciy dagg cinquante jox ko ko moom du dese cinquante nag ma ne day dese cent kon dañ ciy dañ ciy dindi cinquante yoo xam dañ koy multiplier ah, dañ ciy multiplier cinquante ba pare den cinquante yooyu jox ko ko mu am cent waa am cinquante ki ko santaane moom nag alquran nee na du def lu baax moom waaye du bàyyi sax nit def lu baax pour mu war ca am dara xam nga kii musiba la nga ne bankal sa baaraam kanaa muy juróomi critère mu'tadin ku mën a jalgati mu'tadin ku mën a jalgati yàlla nee na ku mën a giñ waat la te day fen du dëgg ku doyadi la kuy regeju la kuy dox di rambaaje nit ñi la mu ñeent juróomeel bi mooy mën naa lil xayr dafay tere yiw naa manaan lil xayri muxtadin ku mën a jalgati la juróom benn ku mën a jalgati lépp lum def rekk soo càmbaree ba ci biir a nga xam ne du yoon am na ay fay lim def jaaduwul baaxul mooy muxtad asiim ku bëri bàkkaar juróom benn juróom ñaar muxtadin xotulin borom baa nga koy weer nag otulin ah, tekku gannaawam rëy la Walid ibnu Mughira ñu bari seetluwuñ ko woon waaye dafa waŋ waŋ xam nga góor gu waŋ xam nga waŋ moom rafet na ci jigéen ñu baal ma waaye waŋ rafetul ci góor de góor gu rafetul de nit ñi nag yàgg nañ ak moom mais seetluwuñ ne taat wi dafa rëy ah, nga waŋ mooy taat wu rëy ñu baal ma ci wax ji bi ko yàlla xasee mu jog mu jog bi mu déggee aay bi rek jog àkki ji yaay bi mu jogee rek penc mi yëpp tas xàqataay daanu ci suuf seetlu ne ndekete ndekete taat wi dafa rëy ndeke wax nañ dëgg góor gu waŋ la ndeke wax nañ dëgg góor gu waŋ la otul mooy ku taat bi rëy bada daalik gannaaw loolu te gannaaw bu mu waŋee sax nag zanim doomu njaalo la allahu akbar mu yàq yaay ja ne ko yaay xas nañ ma juróom-ñeenti xas juróom-ñett yëpp nag yëg naa ne man def naa ko mel naa ko dëgg la waaye benn bi nag yaa ma ci mën a génne mooy zenim bi doomu njaalo la yaay ji ne ko toogal mu toog mu ne ko waaw wax na dëgg de ku la mu ne ko ah yonent bi de moo ko jàng saxaaba yi jàngal ma ko ma dégg ne man lay wax yonent bi moo ne aaye bi Walid ibnu Mughira yàlla di décrire ci aaye bi lay wax melokaan yii mu wax ko ay gaayam gaa yi wax ma ko man nag yéeg naa ne juróom-ñett yëpp moom sama melokaan la moom reconnaître na li ñoo avoué mu avoué juróom-ñett yëpp ne d'accord na ci moom na la mel intérieurement ndax nit ki ne xas léeg-léeg xas na nekk waaye ku nekk lañ la waxal te nga doon ko wala boo ko doonul xam nga balil insaan ala nafsi basira moom xam na ne lii ko alquran xasee dëgg la ndax yëg na ko ci boppam yaay ji ne toogal mu toog mu laaj ko na ne ko mu xamal ko ne wax ji ci yonent bi la bàyyi ko mu ne ah neexul ba neexul waaye dëgg la de sa baay dafa tële woon ay at dafa tële woon te am alal tële te am alal conséquence boobu lég léeg mu mu arrivé penc mi ci lu baree baree baree am alal financièrement da ngay am te jigéen dafa bëgg matériel bëgg na kër gu rafet bëgg na oto bu luxe bëgg na xaalis bëgg na or bëgg na jasneer bëgg na noos bëgg na cheveux bëgg na nangam bëgg na tukki bëgg na lu bari bëgg na commerce te loola yàlla mën na ko may nit ba pare du mën a satisfaire jabaram waaw léeg-léeg nit man yëpp am lu dul lu jeex waaye nag suñ demee ba ci lal bi jabar ji di kontaan ndax dëgg dëgg dëgg euh, euh, li ñuy wax faiblesse sexuelle la am ah puissance mooy doole contraire bi la def faiblesse sexuelle moom daal dafay gaaw a daanu wala amul kàttan daal kooku ma ne ñooy ci penc mi moo tax daanaka boo gisee ñu koy faj sax mooy euh, nuñ tuddi mooy ñooñ di faj euh, puissance euh, kii kii sexuelle mu damay faj tële tële tële la ko wolof di wax waaw tële ñi ci bari bëri ci télé yi bëri ci internet bi bëri ci nangam bëri ci penc bi ñu naan mën nañ ko mën nañ ko parce que dafa arrivé ci penc mi lu bari xëy na nag li ci ëpp wala bokk na ci li nit ñi di lekk li nit ñi di lekk mën naa bañ a baax baaxu koo xam ne wàññi kàttanu góor te góor bu fekkee ne nit bu fekkee ne bi mu nekkee ndaw da doon foyee boppam euh, du màgg takk soxna lekk ga muy lekk baaxul noon lay mel ay cëram day woyof lool su ko defee du mën a satisfaire boppam léegi nag loolu bu ragalul yàlla mën na ko jural njaalo comme li yaayu Walid ibnu Mughira mi wax ne nag sa papa dafa tële woon te amoon alal ma bañ ko fee bàyyi ndax alal ji may ge dem ci di dajeeg benn sàmm ca àll ba ci nga judd yow <laughs> ci nga judd gis nga moo tax xale bu téewul làmmeñam ci pénc mi rek dégg bàqu maamam dégg bàqu maamam am na ñu xamadi ñu nekk ci réew mi mais léeg-léeg ñu waxal leen loo xam ne day dellu ci seen ndey ya wala seen baay ya wala seen maam ya lu tax seen melokaan seen kàddu gu bon di jéem a xas nit bañ xas la ci hmm? jéem a waxal nit safaan bañ wax sa safaanu safaan yow duñ yem ci yow laal sa baay laal sa yaay laal sa maam hmm? ne nii lañ meloon nii lañ meloon moo tax nit da nga war maandu nit da nga war a maandu waaw indaka awraatun wa linnaasi woykat bi nee na ayibu nit ñi nang leen nang nang ci muur sa làmmeñ sa bos doy la sa bos doy la soo tuddee sa bos yam ca waaye boo tuddee bosu nit bàyyi sa bos te moom mu am làmmiñ nit ñi am làmmiñ buñ lay tuddal mën nañ la dépassé mën nañ ñëw ci sa yaay romb sa baay ba ci sa maam ba ci sa maam gis nga Walid ibnu Mughira xas nañ ko moom personnellement waaye xasaale nañ yaayam xasaale nañ baayam penc bi xam nañ lu luñ xamuloon <coughs> lu bon baaxul lu bon baaxul lu bon baaxul léeg-léeg nga gis ku bind téere wax ku bind journal wax ku publier ci internet wax wax joo xam ne dafay xas nit mais boo demee ba ca biir moom ñu ngi koy xas lu lu raw lam xas nit ka hmm? wala xëy na loolu sax histoire nit la waaye waaye daf ko daf ko déformé maanaam daf ko sob daf ko jox keneen yaay ji ne ko dëgg-dëgg ah, li la li la la yonent bi wax de ki ni yonent la lim la wax de dëgg la de sa bàyyi tële woon may taseeg benn sàmm ci àll ba yàlla dimbale ko mu am ngóor lool nag ñu nekkal ko ci rek ci nga juddu ah nga juddu borom bi nee na lii yëpp kañ la fuuy gi feeñ mooy an kaana daa maalin wa baniin bi mu demee ba am alal am ay doom ah, dem ba am alal xam nga dafay dafay dafay jay nit doom day jay nit innama amwalukum wa awlaadukum fitna yàlla ne na seen jabar yi eh, seen doom yi ak seen alal yi fitna lañ ci fitna mooy day tax man naa tax nga mel noom warul mel comme Mughira Walid ibnu Mughira nag njaboot di doom ak alal ju bari tax na mu fuuy bay départ bay eh, sonal yonent bi yàlla ñëw weer ko wan wax juróom-ñeenti jikko yoo xam ne ña juróom-ñett yi nee na moom reconnaître na ko ci boppam waaye benn bee ko wóorul benn bi tamit yaayam confirmé na ne dëgg la ndax doomu njaalo la yàlla ñu yàlla musal mbokk yi ñu teg foofu suñ loxo kon an Canada Malin wa Benin ba ñëwaat euh, lu ci jub rek ci yàlla la lu ci dëng ngeen baal ñu ko di gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu jàppale bañ mën a def émission bi di suñuy partenaire muy Pinipro Euh, centre de pénitence et formation industrielle ca euh, route de Rufisque ca Mbaaw ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen woon ak ngeen jënd produit bi euh, Mouhamed Dóor waar ñu ngi lay jaajëfal di la masawu yàlla nañu yàlla baaxal te baaxee ñu yàlla nañu yàlla musal te mosal ñu in uridu ila lislaaha masaratu wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu CFPI di ab centre de formation pénitentiaire boo xamante ni seen xarañteef dañ ko jëmale ci wàllum defar ay produits d'entretien lu ci mel ni javel détergent gel hydroalcoolique lave-vitre lave-mains ba ci désodorisant ak mandargam bi ñu koy ràññee di Pénipro. ak Pénipro lépp lu jëm ci wàllum set. ak sellal moo xam sa biir kër wara sa bërëbu liggéeyukaay ñoom ñoo si mën Benipro moo leen doon may seen émission tafsir al quran